màggal gi moo di ndigal len nu lu mu fi waxal boppam te daa ko digal murid yi koy gëm te màggal gi moo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 Euh, saa su niñ koy defee El Vision Médias nee naa leen programme euh, nga xamante ni mooy am fii ci euh, Sénégal ak lu ko wër lépp dañ ci ànd ak yéen incha allah rabbi tey nag mu mel ne ñu ngi Touba Touba di waajal li nga xamante ni mooy 18 safar gi muy màggal sunu maam Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñuy waajal màggal gi nga xamante dimanche lay am fii ci Touba waaye démb lañ ci yegg si ñun waa El Vision pour dëgtal leen lépp loo xamante ni am na fii ci Touba mu mel ni démb ba ñëw yoon ba xatut ñu fas yéene ànd yéen rek wan leen lépp loo xamante ni am na fii ci Touba Mbacké waaye ba léegi ñu ngi nii di waajtaay boo xamante ni di xaar ki nga xamante ni mooy président de la république muy Macky Sall Macky Sall mooy waaj ñëw fii incha allahu rabbi fii la jullee juma bu jullee juma pare doo góor dem ñibbi incha allahu rabbi waaye lépp loo xamante am na fii ci Touba Mbacké dinañ leen ko jox El Vision moo leen ko jox direct ngeen ànd ceeg kan Seyda